di séq ak yéen waxtaan bu gàtt dellu ci tolluwaayu réew mi rawatina li fi xew démb mbokki Sénégal ñu ngi leen di masaw di leen saw bu baax ci li fi xew démb ndax lu tiis la ci réewum Sénégal réew mu mel ni Sénégal lu tiis la ci xoolu kenn ko nekk ci yenn sénégalais yi ak foo munti bokk ci diine walla ci waaso wala ci dëkkuwaay li xew démb gàcce la ci Sénégal àdduna bi yépp di ñu seetaan lii de lañ leen doon bañal moo taxoon ñu ne woon dossier bu nu mel waruloon sax génn ci enquête phase enquête gendarmerie waxuma la procureur di ci def réquisitoire ba juste d'instruction diko ko jël ba mu yegg fii mu yegg dossier bor won yegg foofu yeb wax ñu woon loolu parce que dañoo jàppoon ni citoyen extraordinaire lañu ba du dee def bu dee def nañu dara yoon bañ ñu wara top topp déedéet waxuñu ko foofu ndax li ñu gëm ñun ak li ñuy dund mooy li nga xam ne jàngal nañu ko ci diine bi yonent bi alayhi salaam waxee ni Fatima doomam ne ko ak li ma lay bëgg yépp boo defoon naka su dul noonu yoon dal sa kaw te duma la làq sama gannaaw man loolu laa gëm kon waxewuñu woon foofu waaye dañu waxe woon ci kaw dossier boo xam ne lépp ay fenk la ay nar la ngeen jégal ma ci kàddu gi ay feni neen la dossier boobu warul woon sax ñu koy yëkkati rawatina nag mu yegg fii ba lu mat daanaka ñaar fukk ci ay bakkan rot nañ ci lii lañ doon bañal senegal li xew démb defe naa ak sénégalais bu ne fi mu toog rus na ni ma leen ko doon bañalee nag noonu la ko Macky Sall bëgg la leen ko bëgg leen ndax li xew ci dossier bi yëpp ma baamu ko weesuwul loxo Macky Sall ba waxee nag dañ naan moom lu ñu wax mu singali Macky Sall waaye Macky Sall mooy wax procureur defal mu def loolu est-ce que sénégalais xam nañu ko Sall mooy sant procureur jaare ko ci Ismaïla Madior Fall mu def mu ne ko bàyyil mu ba kon bi procureur Bassirou Guèye di yor dossier bi def ci lim ci def ci ay ñaawteef ba ñëpp gis ko te loolu umpul Macky Sall mu encouragé ko si ne ko demal parce que boobu ja gisul leneen lu dul sama adversaire politique bi ma gën a sonnal bi ma gën a jaaxal am naa fu ma ko téye loolu andi woon fi lim bi woon diggante février ak mars 2021 Sénégal yëpp génn ne ko ànduñoo ko li ngay def ci dossier bi ñaaw na salte na te teguwul ci dëgg ndax bu ñaawoon te salte te tegu ci dëgg it yoon def li mu war a def rek ñu fooga ni bu ñu génnee ci loolu dina ci am lu mu jàngat mu boomoon ci fukki bakkan ak ñeent ba tey jii ñu ngi koy jooytu ñun ñëpp te commission d'enquête bi mu annoncé woon sax defu ko ci ñëpp foog ni nag Macky Sall bu jógee ci lii dina seetaat dellu gannaaw ndekete moom ma nga doon dem uti doole gu mu nootee Sénégalais yi pour mën a wéyal li muy def seetu ci kilifa diine seetu ci société civile seetu ci parti politique seetu ci kenn koo xam ne ku ñu war a bàyyi xel la Sénégal dañoo war a jàpp ni Macky Sall li mu gëm mooy moom su mattee rek il faut mu dagg su mattee il faut mu dagg nekk na ci dëgg nekkul ci dëgg moom bu xasee ba mat faw rek mbir mu dagg mu nekk ci loolu ku ne woon sénégalais yi ñaari at ak genn wàll ci gannaaw Macky Sall dina jëlaat dossier bi andi ko ndax lii lépp weesuwul moom li mu nekk ci gannaaw justice di ko sant ak di ko dikk ñëpp gis nañu instruction bi nga xam ne juge d'instruction bi ñu wax maa xam Diallo def na ko démb defe naa fi mu toog war naa am gàcc ndax yow soy instruire dossier bang koy instruire yep musuñu la andil preuve bo meuna té té lolo xew demb ñak preuve boobu ba Sénégal gis ko ñu dem nag ba demb ci ñi sédé ñep ñep ñep nga xamné mat nañu juroom ak lu tegu ñu dem andi benn sédé bo xamné ne kenn gisu ko bi ñuy dem gendarmerie kenn gisuko ko bi ñuy dem juge d'instruction kenn gisuko ba demb demb demb ñu dem ab témoin bo xamné xamul fuñ ko jëlé waaye juge d'instruction xam na ni bi muy def instruction ba di ci bind ba di ma xas man ak di ma saaga te yàlla xam na ni gënuma ci bépp fànn nag ndax li mu def xam nañ fi lu ko ko def loo te liggéey naa ba jóge fi ma fi ma doon liggéey kenn mësul xalaat man ñu mën maa imposer ab décision ak lu ko mën a lal ci suuf moo tax démb fi mu toog war naa am gàcce Sénégal yi war nañoo am gàcce ci li mu liggéey noonu noonu noonu ba nii ñu programmé mbokk yi xool leen ci ñaari weer yi ñaata ñaata yoon la ñu woo Ousmane Sonko ci justice ci lu tegul ci yoon ñu xam ni procureur moom mooy programme te procureur mooy Ismaïla Madior Fall Ismaïla Madior Fall mooy Macky Sall ñu ne nag citoyen yi du négocier ay conditions yu mu man négocier wu ma conditions yu ma demee justice dama négocier wul dara dama ne liñ ma bëgg a teg su dee du yoon duma ko def man négocier wu ma de. ndax doo nekk ci dëgg ba pare di négocier niñ ma bëgg a ah, di di di tëj sama koñ di terroriser sama njaboot di toj samay oto di ma gaañ fileeg looloo ngi fi du ma dem uyu ji kooku du négociation donte nag am na ay kilifa yoo xam ne ci kilifa justice la la bokk ñoo dem ba naqarlu ànd ak ñun ni li ñu doon def du yoon ñoom ñoo dem jël seen initiative woo leen ne il faut que état bi respecte liberté Ousmane Sonko en tant que citoyen mun dem di ñew saa ñu koy teg li ñu koy teg ñoom nag ñu japp ni man ma doon négocier man négocier wu ma dé man lima nek dama ko gëm nek ci deug kuma ma ëpp doole di ma so may rey di ma rey ci deug waaye négocier wu ma kon ni ñu ko programmé ci fan yépp procès sur procès bu la ci gëna ñak solo nga né bi la te lépp ngeen xam lan mooy jubluwaay bi ñu ne woon donc gàcce gi am démb ay nit yoo xam ne ñaari at ñu ne yor nañu ay preuve yoo xam ne bis buñ ko génnee àdduna tukki defe naa keroog rek bi may mujjee wax nee naa leen ku ànd ak Ousmane Sonko boo tëddee demal nelaw ba yandoor ndax lu toll ni tarfata ayn ci preuve amuñu ko ndax lu am mooy am preuve waaye lu amut mënul am preuve mbokki senegal ndax yaakaar ngeen ni man Ousmane Sonko rafle naa ci jigéen ba naan maa ngi dem di sif jigéen loolu mun na dugg ci xelu kenn ci waa Sénégal di ko def nag di ko defaat di ko defaat ci bërëb boo xam ne mën nañ ma faa jàpp loolu xel mën na koo nangu xanaa su ma demoon bay siif sax du ma dem seetlu niroog dàngeen gu AVC ma naan moom laay siif wax dëgg yàlla ñàkkuma choix man yalla xam na ni su doon lor rek la soxla jigen rek la soxla beuri na fo xamne buma bu ma fa xoolee loxo ne soxna la bëgg ñu may ma tout de suite kon ban rafle lawar wara am ba di lambar lambari naan ma ngi sif ay xalé jigen amul ben jotté bo xamne ne sama digganteeg bi wayé ay nit jël nañ ko ñepp xam ko xamni Mamour Diallo mi ànd ceeg maître Gabisso loolu ñëpp xam nañ ko moom ci boppam wax na ko ci ay audio fan la juge bi teg audio yooyu démb li tax tegu ko ñëpp dégluwaat ko lu dul laaj na ko ndax ojo yi nangu nga ko mu ne ko waaw nangu naa ko maa ko wax waaye dama doon kaf koo xam ne nee nga dangaa ëmb depuis ñetti at wala ñaari at ak genn wàll wasino ñu ne li tax nga wax ko dama doon kaf dama doon naxeete nga dellu si ni yor naa ay preuve yu dul jeex mi ngi fii sama téléphone musoo génne ay preuve nga dellu si def say ojo wax lu doy waar loo xam ne ku ne tudd nga ko ci ñi nga wër ne def na ma lii def na ma lële ne Mamour Diallo moo ma sant lii ma dem ba xam ne aw ma pexe ma ne naa ko nax moo tax ma woote ne ñëw leen am naa li ngeen bëggoon loolu suñ ko tegoon ci tribunal ab juge warul sax naan damay toogaat di déglu 30 secondes waaye li gën a yéeme mooy ñii nga xam ne ñooy comploteurs yi ñoom la waroon yoon waroon topp tey ñu daan leen daan yu méttee métti ndax seen caaxaan bi lor na doomu aadama yu bëri du bakkan yi ci rot rek waaye ñaata ay alalu jàmbur yàpp na ci ñaata yoon lañu jël réew mi naj ko ba kenn noo noo yeetu ak image bi ñu yóbbu ci Sénégal ci international man mii nga xam ne maay principal victim bi bu ma amuloon sama fulla ak ndëgër laay te yow askan wi nga jàppale ma ci te yàgg naa la wax ni du ma la mus a rusloo ndax wallaahi liñ ma jiñ defuma ko du ma la mus a su du woon loolu tey maa ngi woon rëbës bu yàgg foog ngeen nag dinañ jaar foofu yépp ba egsi fii ma ki Sall toog ne fa ma bàyyi woon liggéey bi fa laa koy jëlewaat dinaa ko yeggali déedéet loolu mënul ne ndax bakkan yi ci rot war ñu ñëw gën a gore ñun ñoom la wax ñu ne force restera à la mooy ñoom li ñu bëgg a defloo justice dañ koy def ba mu mat sëkk faalewuñ ci Masamba faalewuñ ci Mademba faalewuñ ci preuve faalewuñ ci ku am dëgg ñun nag ñoo war a am suñu fulla ba nit wan leen ni force restera au peuple mooy askan wi kenn du ko noot ci lu dul dëgg li xew démb gàcce la ci senegal rus naa ci am naa ci lu ma naqari li tax nag suñu xel warul dal ci justice ni muy doxé ba tay xam ngeen ni la xew dem yoon dafa ne munoo atté nit en matière criminelle lu amna ku koy layal avocat kenn mënul def procès ta avocat amul dem nday soxna sudul dul nday nday xadi sudul su dara sax di jigen go xamne mi ngi tollu digeunte ñu naan juroom ñaari weer wala juroom ñetti weer nga teeku ci suba ba xaju guddii nanguloo sax mu am avocat bu toog ci wetam ñu ne la bu amul avocat danga war a arrêté ba ñu ko may ko mu dem uti ay avocat nga doog a def procès bi li xew démb mosul am ci histoire justice ci àdduna nga ne faw rek ma def procès bi mujj gi moom lañ doon wax moom ndeexat Khady ndax am nga laaj yooy laaj témoin yi ndax moom mooy avocat wu boppam procès boobu dafa ñuul amul fenn ci àdduna naka la ay juge mun a defee loolu ba pare ñu ne ñu na seen xel dal dem leen rek ngeen wuyu ji bu amee ñaari sénégalais yu gëm ni dossier boo xam ne politique a ngi ci Macky Sall ne dee rek même su ma dul doon candidat sax Ousmane Sonko il faut mu yóbbaale ko ay nit dem di toog ak moom ay nit yu nekk ci nguur comme ñu nekk ci opposition naan ko boo sàgganee ba Ousmane Sonko toog dig na la lii dig na la lële nee na dina la def nii na la def laa mu ne bakkanam la ci teg faw rek mu yóbbaale Ousmane Sonko waaye waaye waaye réew du doxe noonu réew lay doxe ci kaw ay chartes li war a tere Ousmane Sonko nekk candidat te war a doon lu wóor te wér waaye du ay caaxaan bi ñu commencé ba léegi ci tappale la ñu nekk nee nañu Ousmane Sonko jot naa convocation waat naa ci yàlla billaahi wallahi bu dee jot naa convocation yàlla na ma yàlla alak ilaa yow miti te ñoom ñi wax ni jot naa convocation ku ci waat lii lakk commissaire bi bind ne ñëw na sama kër fii si Ziguinchor fekk ma ma taxaw ci buntu kër gi mu jox ma convocation wallaahi waxul dëgg dafay fen moom xam na ko ñoom ñi ko def xam nañ ko te li gën a yéeme nee nañu jox nañ ma convocation fii si Ziguinchor le 11 commissaire Adramé attesté ko ne commissaire Massali bi nek Ziguinchor moo ma fekk sama buntu keur même commissaire Adramé mo defat benen rapport le 16 ne Ousmane Sonko jotuñu ko gis joxuñu ko convocation té mom nee le 11 joxnañ ma convocation document yëpp ni ngi fi nañ ko genn ngeen gis pour won len tapalé gi nek ci justice fim mu toll nii ak ni ñuy jalgatee yoon dès lors que joxnañ len commande politique nelen il xam fu ngeen koy ngeen président ma envoyé tey vidéo def interview mais un procès est risqué en Afrique un procès est toujours risqué mais j'ai toujours dit qu'un procès politique ne se gagne pas au tribunal ça se gagne avec l'opinion su ngeen gisee sama taxawaay début ba léegi loolu laa leen bëggoon wax li xew ni lii weesuwul caaxaan waaye su doon dañoo caaxaan ci lu ko jar mais jël suñuy doom di def yu salte yi seen kanam àdduna yëpp di ñu seetaan lépp jàpp ni mën nga détruire ab doomu aadama lépp nga jàpp ni ndax Sonko mu sell mi ñuy dégg mooy dagg seen xol image bi sénégalais jàpp ci Sonko ni ah kii de ku baax la kii di jullite la kii ko jub la mooy dagg seen xol ñu japp ni procès bu melni mënon na yaq image bobu lepp ñu tek ko ci fenn ak cinq li am nak ñun dañ koy delu ci yalla te yalla moy leral ay birum ba mu leer nañ lepp dama ko jappé natou ay yonent sax natou nañ len ci lu melni motax yalla bimu nan ahasiban nasu yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladina min qablihim fa la yalamanna allahu alladina sadaqu wa la yalamanna alkaadibin yàlla dafa ne du ma leen seetaan rek ngeen di fëgg dënn naan gëm nañu gëm nañu te du ma leen nattu du ma teste ba xam ndax yéen gëm-gëm mi ngi ci yéen noonu ma ko defe woon ñi leen jiitu nga xam dama leen doon nattu ba xam kan mooy wax dëgg ak kan moo du kan mooy wax safaan wa nattu googu nag buñ ko jàpp rek ci wàllu imaan pas-pas ci diine mais yéen ñi ma bokkal projet bi yàllaa ak ñuy nattu ba xam ndax li ñuy woote ci projet bi dëgg la ci ñun wala du dëgg fii ñu yàlla jaarale ñetti at yi mu metti loolu ci ñun ak suñu njaboot ngeen may ma ma rendre hommage sama njaboot rawatina samay soxna ndax dund nañ lu méttee méttee métti te kenn musuma cee wax lu dépassé te kenn musul jog ne ma ngi génn kër gi kenn musul tok ba wax lu jëm ci li te ñepp xam ne lii natt gu metti la ma leen rendre hommage soxna khadike Kébé ak soxna ana jamanka ak samay waajur ak samay mbokk mais ak wa parti bi yëpp ak sénégalais yep nak ndax sénégalais yëpp ko laaj mu ne la ni ay tiaxani la waye natt yoyu la ci yàlla jublu mooy gën a peese suñuy mbagg ba xam ndax li ñu bëgg yootu attan nañ ko nu de dund nañ ci ñetti at yi loo xam ne gaw ma ni am na om politique Sénégal bu ko mës a dund waaye nous sommes toujours debout parce que suñu lépp dañ koo dénk suñu borom dañoo am gëm-gëm te yàlla daf ñoo sant muñ ku yàgg muñ rek dëgg feeñ moo tax may woowaat Sénégalais yépp manipulation bi bëri na nee naa leen lu toll ni joto jote maag loo xam ne lu ñu nangu la sax amul sama diggante ak ndaw si te depuis le début wax naa leen ko waaye manipulation bi bëri na lañ ca bëggoon defe naa tey la furaas ndax xëy nañu seen presse yépp génne ay titre ku ne di wax lu gën a bon fu ne nga dagg ko waaye peuple bi gëmu ko sen sànni tàccu def nañ ko lañu mënon yépp def nañ ko te amuñu ci lañu bëgg lañu mënon yépp def nañ ko amuñu liñ ci bëgg manipulation dem na ba nga gis ab journal bu melni l'observateur nga xamné Ousmane Sonko lay baña dégg jël li nga xamné mom la docteur Alfousseyni Gueye wax ñu wëlbati ko totalement ba defe naa sànq rek may commencer émission bi la gis ni koko bind na sax communiquer né liñ ko wax lo yépp musu ko wax nit loo ko bañ bañ bañ bañ dee ko waxal li mu def Sénégal yi kenn dofu ci ñu mën a déglu la ñu mën a xool lañu te loo xam ne suuf ba ngoon jot réseaux sociaux yi nit ñaa ngi doon def reportage en direct nga jàpp ni yow mën nga am xëy rek daal di chargé wax lu ñaaw wax lu bon génne Ousmane sonk ci xolu Sénégal yi tey la Ousmane sonk gën a nekk ci xolu Sénégal yi li tax saa su ma génnee ñu gaawantu sànni lacrymogène xam nañ ni fu ma génn Sénégalais yëpp génn ànd ak man kon mu des nag fa ñu jëm bu ku xool li xew démb xam ni dossier bi dara amu ci amul benn li ñuy wax élément constitutif de viol début de preuve sax amul ñépp gis nañ ko defe naa li gars yi naan fen bi jaaw tey jii

moo tax nag ma dellu si si ma waxoon léegi dossier politique politiquement lañ koy régler moo tax ma woo Sénégal yëpp ñu jóg takku tey la suñu marche vers le palais commencé tey la suñu wala suñu phase terminale u marche vers le palais commencé incha rabbi nañu gën a dëgër gën a takk suñu ndigg ak sénégalais bu mu doon même boo nekkul membre passif waaye rek nga bëgg réew mi te bañ injustice yii ñuy def ni waroo ko nangu ndax tam dinañu seetaan loo xam ne tôt ou tard bu ñu amee lu ñu bëgg ba ci opposition bi nag ñi ma ko bokkal mu leer ni Macky Sall bu amee li mu bëgg ci Ousmane sonk dina jafe trop mu am leneen lu ko të ndax loolu la yàlla dogal def na ko defaat ko mu yomboon loolu ci moom yàlla dogal bi mu egsee ci ñun la jafe ci moom mu jàppal ñu ko nag benn en boo xam ne ndax jàpp na ni moom euh, xàlloon na yoon woo xam ne ay waxu troisième mandat yooyu yëpp formalité lay doon ci moom mu yegsi ci ñun nag ñu doon dangar gi nga xam ne moo ko tëbalee yi moo tax mu def ko mbir personnel ne faw rek ma def ma def ko lu méttee méttee métti

bayyi di jël li nga xam denk nañ la ko ci doole nguur diko dalal diko dalé ci kaw nit ñi lool dañu bëgg mu joggé fi gannaaw ma wat ko gisuma ci aduna luy dund lo xam mën na détruire Ousmane Sonko ndax lima défar defar xamuñu ko borom bi la motax ma lay soñaat ñepp di wo ñepp pour ñu jog jeunesse bi ci yéen lay doore lu ne ñu koy def nak pour détourner len façon parade bu nek ñi ngi out façon influenceur bu nek pour yaakaar ni mën na détourner yéen jeunesse bi waaye gëm naa ni am ngeen conscience ni sen avenir ngeen ni jouer du jëm Ousmane Sonko man nu mu tuuti tuuti li ma waroon am ci aduna am nako te doylu ci waaye seen avenir la nous sommes à huit mois juróom-ñetti weer pour ñu jël réew mi yor ko ci yorin boo xam ne kenn ku nekk ci yéen dina ne man de xalaatu ma woon ni lii Afrique fii dinañ fi yore nii réew te mus musuma leen wax lu dañ nag lu ma leen mësa wax gis ngeen ko kon su ma leen ne lii dinañ ko def ngeen war maa gëm ndax gisuma lu ma ko jaral ci àdduna man alal daw taxumaa daw tur taxumaa daw daraja taxumaa daw waaye liggéey ngir yàlla rek lay doon sama satisfaction ba ne waaw ma dellu toog fi ma toog keneen toog continuer bi du dara ci ci alal yu Je ne nañ ko les politiciens kon c'est pas le moment de baisser les bras Il ndaw sama jeune ak où munti nek, muy artiste bi muy artisan bi muy ak étudiant bi élève bi ku mun munti doon transporteur bi baykat bi nappkat bi yow sama ndaw réew dama la tàllal sama loxo ne la damaa bëgg ñu jaayante ci defar réew mi pas jaayante ci sànnil naa ko carte rek waaye ñu jaayante ci defar réew mi définitivement yow euh, euh, sëriñu daara yi walla nitu daara yi de manière générale yow transporteur bi yow keneen ak keneen ak keneen ndax ku rek juum maa ngi dellu tàllal leen loxo di leen woo ci mobilisation exceptionnelle Macky Sall na dellu gannaaw ci lii mu nekkee lu ko moy nañu jaral sax ñu ñàkk lépp waaye nañu taxaw jàkkaarloog moom jàmmarloog moom lii lañu bëggoon waxtaan ak di leen wax ni bés ni ki ëllëg gën saa gudd gannaaw ëllëg bu soobee yàlla dinañu Dor delu ci ci dakaru ñun ñep lañu wajal dakar ndax fa la mbiri di amé delu jaale ñi nga xamni ñak nañ ci nit te mo waroon jeex ci Sénégal waxat nak tamit ni war nañu taxaw témbe bañ ñu jappati suñu nit ndax ki di Macky Sall su làmbee mu a du delu gannaaw day continuer di continuer japp ji bëri na te tegul ci yoon te kenn ci ku bind article sax ñu ñu jël la tëj kenn muccu ci kon dañu takk suñu ndigg ndax lii weesu na dictature léegi dañ doon wax dictature rampante waaye dictature bu fees gànn la ñëpp di ko gis kon dañu takk suñu ndigg jàmmarloog Macky Sall bu xel bu delloo see xelam xam ni moom réew mi donn ko ñun ñëpp ñu mayante jàmm lu ko may bu ñu gendarme fees ay gendarme moom fees suñu bët bu ñu ay policier fees suñu bët ay nit lañ ñuy ay nit te gis ngeen bi ñu taxawee ni ñu waroon taxaw mois de mars fi mu mujje kon maa ngi woo ñëpp ci ñu jóg taxaw gën a takk ndigg yi gën a farlu di sant sénégalais yi nag ci seen soutien façon message bu ne maa ngi koy jot mënuma tontu ñëpp di leen sant ci seen soutien ak seen kóolute ne leen nag lépp loo xam ne maa ngi ci doon def benn fas fasinaat yi def téeméer fi mu toog nii